ñun ay bàjjan lañu ay acteurs lañu nekk sur le terrain di liggéey nekk ak suñuy moroomi bàjjan yàlla dogal bi ñu commencé 2009 ba léegi bàjjen yaa ngi liggéey kenn mësuñu ne bàjjen bi dañ ko war a motiver wala bàjjen bële duñ ko motiver président Macky Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant. di ñëw nag ci président Diomaye mi nga xam ne moom moo toog di ko wax ne bàjjenu gox yi dañoo am cent 334 bàjjen ñu nekk ci département bi te ñu war leen a fay ñu fay xaaj bi bàyyi xaaj bi. ñu ne duñ leen motiver ndax defuñu formation ban formation bàjjenu gox yi ñu ngi ci sur le terrain guddi ak bëccëg bàjjen boo ci fëgg loo ko laaj mu waxal la ko te lañ ñu waxoon muy fukki junni yañ ñëwoon dañ koy jox bàjjen yi ñu jox leen juróomi junni buñ ko fay ko dañ koy teg ci taabal séddoo ko ak suñu ay moroomu bàjjen ndax benn bàjjen du lekk bàyyi moroomam ndax ñun solidarité boobu moo nekk ci ñun ñuy ñaan rek 206 bàjjen lañ fi motiver li ci des yëpp kenn motiver wu leen te ñu nekk 334 bàjjen xam nga loolu doy na waar